message Saint-Valentin bi ngeen fël dem stratégie bu garaaw jékki-jékki rek envoyé nit ñi seen i affiche di ko euh, euh, day takk soxna ba Matar Diop ñëpp a ko def stratégie. waaw àdduna noonu la àdduna moom chaque jour moom nit ñi da fëgg porte bi jaar porte bële boo bëggee rëcc des fois nga siñaale gauche jàdd droit mais julluñu ci dara dañoo jugoon pour defar xamaar ak liñ dëgmal nii kese moo ñu tax ñu dugg dugg ci meedu dara billaahi ñëpp naan Matar Diop kilifa la daawul taamu dund ci yoon ba pare commentaire yi bëri na ci côté bi ñi naan jabar xale ñi naan waru koo takk. <laughs> mais soo biit la rek soo biit ak coow ñoo ànd Sidi tamit bu doon tax jaww dëggantaan Njaay nii lay mel ndax moom mbiram lépp léppam coow la mais gars yi dañ comprendre ne soo biit la rek jubluñu ci pour dara pour lu rafet rek moo tax ñu jublu ci xama ak chaque jour àdduna surprise moo ci dàq loolu kese lañ ci mooñ ci dugal quoi mais dara dara dara taxul ñu ñu dugg ci. waaw démb ñu daal di gis sa benn sotti nga dem seetaani ki nga xam ne moo di oustaz lan nga ci jublu woon nag tamit bi nga demee seet si nga xam ne moo di oustaz oustaz kan euh, RDB oustaz kooku sama mboq la kooku sama deret la kooku sama dëkkandoo la ñoo ko yëmbal ah mais kooku sama dëkkandoo la de kooku soo bis boolewuñu mais dem bi nag ñu ngi doon waxaat ni que day door martu parce que des day nekk ci internet bi di saaga moo moo waraloon muy dem non jamais kooku man moom bi ñuy xam bi ñuy xamante dugguma sax ci milieu showbiz Mouhamed kooku seen kër laay defee lépp magam sama xarit la Gora Mbaye ñooy ànd ñooy defandoo lépp kooku man moom showbiz boolewuñu sama xaritu yaay la te man ku bëgg sama yaay dama lay bëgg ah non. mais nag baritu da nga xaw a waaj a xam ndax aadama dafa dafa am lu kay moomay kalaame man kenn teewu ma ci code prib laa doon xaar prib te Siri nee na man tamit man la moomay teree wax. man lu may tere wax ci àdduna amul xanaa dee wala Sidi Diop Baye moo may tere wax man lu may Adamo Adamo ma damaa mën a tënk man soo kenn mënu ma cee tënk ci àdduna kenn parce que Serigne Saliou Mbacke lii loolu Adamo. parce loolu comprendre naa ko du ma kil moo tax man yooyu noonu dama ciy rëcc rek ndax sama xel bi maa ko moom te maa ngi xalaat maa ngi soobee waaye maa ngi sóoraale chaque jour loo xam ne war na war a mën a jigee feneen ñëw ci man tamit ay xale lañ nekk nekkuñu xale yoo xam ne dañuy ñëw wala benn xale bu jigéen jugee fii rek xam nga wala benn nit teg ñu dil ci xaalis rek ndax ñu ndogal nag ku nekk lay dal mais ñaanuñu yàlla mu dalee ñu comme ni ñu koy ni ni ni muy dalee nit ñi ñi ngi bàyyi suñu xel suñu bopp daal voilà. Pariso artiste bu mel ni Sidi Diop ñu bëri ñu ngi koy classé yi war na weesu bad buzz c'est-à-dire clip di créer bad buzz pour clip bi am audience est-ce que Sidi toll na foofu noonu gis nañu artistes yu mag yëpp du ñu créer bad buzz mais bad buzz créer ci ñoom beneen bi si des moom mooy Sidi ak bad buzz bi mu créé jëlal na ko njëriñ parce que vidéo mi ngi YouTube mais percé déggoo la ma la wax Sidi Diop jëmmam rek bad buzz la yow gars yi gars yi ñoom gaa yi dañoo sawar ci yu nag dañoo sawar ci moom parce que comme ni ma la waxoon rek nga nekk xale pare nekk waykat ñi ñi la fi jiitu yóbbul ñu la dara à chaque fois rek dañuy bëgg chaque jour sa échoué mais Sidi Diop moom lu mu def day neex vidéo boobu mu percé mu ñàkk bañ a percé lu ñu ci am important mooy Youssou bu wooyee bu wootee five day fees bu ñu wooyee dañuy gis loolu moo ñu amal important. mais Barito mais Barito da ngay takk jabar seen clip la mu leer la di takkoo jabar da si musul def loolu communication marketing est-ce que loolu dox na ci côté Sidy si daan na génne te du def loolu te day dox. te bii mu créé day takk jabar te takkul jabar. yàlla yàlla def jàmm ñi nekk ci bi yëpp bii loolu amee ne nag lii clip la. Sidy moo tay lu mu def moo tay Sidy moo tay lu mu def moo tay. nangu bu échoué moo tay bu esiwul moo tey Sidi lu mu def moo tey. yow Bad Buzz si nga bokkoon. ah dëgg parce que nga ne bàyyi nga Sidi Diop. man maa def loolu. wala xamoo woon Bad Buzz yow. man ngay wax man maa ne bàyyi naa Sidi. Ah. man maa fen ne bàyyi naa Sidi. man maa fenaat ne bëggaat naa Sidi jàppaat naa Sidi. mais xamoon nga ni Bad Buzz la. loolu yëpp nekkul ma leen wax waaye en tout cas daal Sidi Diop lu mu def ci àdduna moo tay ah waaw moo tey lu mu def moo tey bu nekkee lu neex moo tey bu nekkee lu naqari moo tay bu nekkee lu baax moo tay bu nekkee lu bon Sidi moo tay. d'accord d'accord après décès sunu maman Diaga li mu wax bi ñu ko tàllalee micro nee na Wally loolu Sidi def bu doon waa Sidi Sidi moo nekk ci situation boobu dafay def lu gën donc est-ce que xaaroon nga réponse boobu ñu koy taxé que ni dëmm rey la jaale xam nga loolu noonu ma ci woon ñëw sax parce que nekk loo xam ne lu lu lu ma amal njëriñ la. waaye ñun showbiz bi ñun bañantewuñu ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi dañuy mbalagante ne dañuy yëngalante dañuy tooñante mais ku ci xewle dañ lay demal moo xam bànneex la moo xam ñaanu ko yàlla mu nekk naqar la yaa ngi comprendre ñaanu ma ko yàlla yàlla na yeex bu nekkoon suñu yaay sabu jara moo fi jugee sax waali day def lu mel noonu wala mu def lu rawloo noonu kon nit ñi a chaque fois dañuy bàyyi di jaawale showbiz ak naqar wala bànneex ñun dañuy mayante xaalis waali mooy may Sidi Diop xaalis Sidi Diop mooy may waali xaalis mais taxul ñoom ñaar ñu nekk ay noonu parce que bu noonu amoon du fa jógee dem biir këram jàlle ko saafante ak nit ñi xam nga mais yenn sénégalais ñoo bëgg di tas àdduna ñoo bëgg di wax lu bon bëgg ñu fekkee lu baax bëgg ñu fekkee fi ñu koy waxee mais Sidy Diop ak Wally mosuñoo réeroo ci àdduna showbiz moo leen boole rek mais bu jeexee ñoom ñaar ay frères lañ ñoo bokk lépp ok waaw album Sidy Diop mi ngi koy waaj mi ngi koy waaj pour génne ko am na ñu wax naan c'est pas le moment opportun pour mu génne album heure bii nii décembre la artiste yëpp génne album Sidy bàyyi ba décembre jàll ñu ngi waaj a dugg ci koor pour mu génne album est-ce que gëm nga ni album boobu dina percer sénégalais kenn xamul lu ñu bëgg Sidy Diop daa war a génne mu war a génne ñooy day xaar koor ak Sidy Diop bu ko neexee mu bàyyi màggal Touba mu génne album loolu moom la concerné te incha allah album dañ koy jënd te ñii ñi dañ koy cons loolu kese la ñun ñun ñii ñi bàyyi ñoom xel li ñu wax ñun xam nga ñun lu ñu amoon important Sidy Diop lu mu def ñun ñu gis ko suñu xol sedd ci ñu dox ci loolu noonu leneen amul ñu njariñ waaw sénégalais ñoom seen conseil dégluwuñu ko sax. mais waa ce que moment bi yéen xanaa yéen yéen seytaane yéen ñaata artistes ñaata artistes ñoo fi tëgg ñun ñun ñun ñun ñun peut être dëj bi li muy betti met yëpp ñu ngi doog a tëgg tey ñu ngi doog a tëgg tey mais ñaata artiste ñoo tëgg ci ginnaaw mais yéen yéen yéen yéen ay seytaane yéen lan moo tax yéen yéen artiste yi tëgg demoo leen ngeen fekk fi ñu nekk ne lan moo tax ngeen tëgg. Sidi instant bi bu tëggee jaaru na ndax lépp passé na waaw waa nag de de nag du fi mbañ de de du fi mbañ dee du fi mbañ de man mii di wax yow ñàkk naa sama baay yàggul dara dee du fi mbañ quoi nañ bàyyi yi détails yi ñuy topp di wax Sidi bu tëggee daa war a tëgg bi suñ mama jaaga gaañoo li li ko war def na ko bi loolu passé ñu bëri tëgg tëgg nañ moom mu toog surkoom tëggul mais instant bu génnee nag jot na nag parce que fansam dañ ko namm mais waale sax moom waale nday mbiligi a génn way parce que fansam yi dañ ko namm le le 24. ngeen may si tëgg léegi ngeen may si tëgg. Ah. waaye yéen a woon Sidi jàmm. non kenn waxul Sidi bu tëgg. li problème bi. la lu tax mu mu teel. la reeroo dee woo reeroo fu mu am ay yéen tamit na bàyyi leen ñu waay a tëgg lee passé na passé na moomaa jaaga dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko àjjana mais Sidy nag liggéeyam lay liggéey nag fa yàlla ah jërëjëf Barito bàyyi leen seen waxu